rahmatullahi taala wa ci turu sëriñ bi ñu ngi delluwaat di nuyuwaat bu baax président de la République Macky Sall ak mboolem délégation bi mu àndal ci ni ko sëriñ bi waxee léegi yeesalaat rek cant yi mu yóbbante woon waxaat ma ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax xam na ne def nga li nga man ak li nga mënut nee na yéeneem ci am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ak jàppam ci yow neen desalu ci dara nee na xam na ne sa jàpp ci moom desaloo ci dara sa yéene ci moom itam xam na ne amutub àpp kon nag nee na foog canti tàmbalee ak fa mu yem mi ngi la koy sant di la ko dem di la ñaan itam uh, suñ borom bi nga xam ne eh, lépp moom mu gën laa jàppale dimbale la wax it ne nee na mi ngi lay ñaanal eh, li nga xam ne yéene nga ko ndax xam na ne mooy sa bëgg-bëgg. yàlla suñu borom borom dimbale la ba nga mottali naa lii ak yéen yi nee itam li mu koy jeexale rek mooy ni la ko waxee woon moom Serigne Touba rek la am te xam na sag bëgg ci moom ak sag jàpp ci moom kon nag mu ngi yeesal di la xamal ne dénk na Serigne Touba sa mbir bàyyi na ko Serigne Touba tàbbal na ko ci biir ab liggéeyam.